wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi gannaaw ba ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci am yonentam bu tedd ba sayiduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di delluwaat di sant ak gërëm sunu yaakaar teeg ëllëg seexuna ahmadul xadim radiallahu anhu di ñaanal alxalifatul am li tarixatil muridiya sëriñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ak njabootu sëñ Tuubaa gépp di saare bu baax a baax sunu buntu ci kër Cheikh Sidel Moxtaar boroom gaawaan muy sëriñ Cheikh Anta Mbàkke moom sëriñ Moodu Roqaya ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te wéral ko ak njaboot suñ gaawaan gépp di siyaare bu baax a baax itam mbokkitaal bi nga xam ne ñoom la ñu nekkal fii ci Assalaamy TV ak Assalaamy FM 99 point 0 ci njiital sëriñ Fallou Gala Silla ak itam sëriñ Mor Ayib Thiam bi nga xam ne moo nekk ci xarala gi ak itam mbokki taalibe yëpp bàyyiwuñu kenn di nuyoo ko siyaare bu baax a baax ñi nga xam ne baaxoo nañoo topp seen émission bii di Maktabatu Cheikhul Khadim di ko ànd ak ñun di ko bàyyi xel fii ci réew mi ak ci bitim réew. ñu ngi leen di bu baax a baax di ci jiital suñu mag suñu xalifa sëriñ Mouhamadou Amine Gueye nekk fee ca Nouakchott ak itam mbokkitaal bi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel jotaay bi ñu ngi leen di bu baax a baax ku mel ni sëriñ Moustapha Gueye xasida Daaru Salaam ak itam soxna Mambu Sodia fee ca Tib di ndokkeel baax a baax nag murid yëpp ci bis bu tedd bi nga xam ne ci lañu génn di bi nga xam ne ci lañu Sëriñ Tuuba wowoon sàkk woon ci taalibe yépp ak képp ku ko nangul nga ñëw santale ko boroomam subhaanahu wa taala mu mel ni cant googu taalibe yi def nañ ko ci ni ñu ko yéenee baa ci niñ ko mane baa fi seen doole yam waaye li ñu yéene Sëriñ Tuuba sax dëgg-dëgg ba léegi murid yi àgg guñ ci waaye def nañu seen kéemtalaay kàttan kon dañuy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom lañu sëriñ bi woowoon ne nañ ko ko santale te mu digg ci ak cant moom yàlla ne la in sakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi la sodit kon ndolleen loolu yi nga xam ne moom la déggee ci ak cant ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala mu dolli ko murid yépp ak jullit yëpp yi nga xam ne àndoon nañ maase ñëw fii ci Touba ak fu ñu mën a ne ci àddina doon sant la sëñ Touba boroomam subhaanahu wa taala ndax sëriñ bi moom léppam da cee sant boroomam amut lenn lu sëñ Touba lu ñuy tudd te santu ci boroomam subhaanahu wa taala itti woo gim itti woon farata ak na sax dafa doon sant yàlla mi nga xam ne moo ko may mu mën a moo ko xéwale mu mën a ittiwoo farata ak sunna alhamdulillahi alkarim yusil minan ala istiqaali bi furudin wa sunnan waaye itam dafa sant boroomam sax ci doonoon gim jagleel gim ko jagleeloon mu doon ki nga xam ne moo doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sakartu isxasani bi xidmati ma isani kon ñu ngi ñaan yàlla mboolem xeetu cant goo xam ne sëriñ bi sant na ko boroomam rek yàlla na murid yëpp dugg ci biir cant goog yi ci barkeem moom Cheikhul Khadim radiyallahu anhu day mel ni nag heure bu ñu génnee bisub Serigne Touba xel yépp li muy dëgmal jëm ca mooy bisub yonent bi sallallahu alayhi wa muy bisu gàmmo kon day ni loolu lay firnde ak di wane Serigne Touba nuroo gi léppam nuroo ak mbirum yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne itam yépp moo doonoon bëgg ko ak liggéeyal ko ba tax mun génnee ci bisam rek dañuy dégmal bisu bisu sangam bu tedd boobu bi sallallahu alayhi muy gàmmo kon suñu waxtaan tey ci maktabatu Cheikh al Xadim fii ci Assalaamy FM ak Assalaamy TV day doon waxtaan woo xam ne dañ koy waxtaan tudde ko waajal gàmmu waxtaane kan sang bu tedd boobu sallallahu alayhi mi nga xam ne suñ boroom subhaanahu wa taala daf yónni mu nekk yërmaane ci képp koo xam ne ku yàlla bind nga wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin baziran wa nasira walakinna aksara naas laa yaalamuun kon yërmaande yooyu nga xam ne moom la doonoon moom yonent bi sallallahu alayhi wa ci bépp jaam ci képp ku yàlla bind nga xam ne képp koo xam ne namm ngaa jaar ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala baa namm ngaa baa namm ngaa dem ci yàlla sa namma dem ci yàlla ngoog yi bunt ba nga namma jaar munta doon benn bunt budul muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba tax kon woykat bi doon ko naan képp ku jaar ci yàlla te jaare woo ko ci muhammadu rasulullahi doo àgg fa yàlla kon yonent boobu yi nga xam ne ak gane àddinaam soriwuñ ko muy fukki fan ak ñaar ci rabiul awal di wax weeru gàmmo kon kooki lañ bëgg a waxtaane moom yonent bi sallallahu jàngat ko jàngat taarixam jàngat aw askanam jàngat itam maamam ju tedd ja nga xam ne moo ko yaroon ak itam euh, ànd ak waajuram góor ak wu jigéen ak itam itam ab juddoo moom yonent bi sallallahu alayhi wa ndax Sëriñ Tuubaa ci bëgg gi mu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne daa far ci moom bëgg leen lu moom ba tax mu doon wax naan maat mahabatiyal muxtaar sayidina bilmaqaani wal ahliil wal walada dami wa ahli wa awlaadi fidaau lahu abdan qadiman lahu muskana li sanada ak bëggam sax dafa àgg sax ci jàpp ne weer wi yonent bi sallallahu àddina mooy weer gën ci weer yi ba mooy weer wi nga xam ne mooy taaral weer yépp sahru rasuulullahi bahjatu suhuur wa ramadaan saaru itqin wa tuhuur nee na weer wii weeru gàmmu day nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi sallam feeñ nee na mooy taaru weer yi demeeli weer yëpp bu ñu taxawee la leen di taaral bañ mën a taaru mooy weeru gàmmu mu ne weeru gàmmo mooy taaru weer yi ne weeru koor nag mooy weer wi nga xam ne mooy weeru gore ci sawara ak weeru laab ci bàkkaar ndax bu ne weeru gàmm mooy taaru weer yi ki gàtt xel mën na léegi weeru koor nag waaye Sëñ Tuubaa moom day tontu bay tontu am xel mu ne weeru koor nag mooy weer wi nga xam ne ci la ñuy goree ci sawara waaye ci lañuy ñuy laabe ci bàkkaar te weeru koor sax li muy am am solo mënoo cee jariñu mukk lii feeg da gëm yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ci moom la yàlla jaarale jaamu yàlla gu tedd googu gi ban man koo xam ban man koo jëfe te lu waaye di def ci jaamu yàlla ak lu mu réy réy lu mu sell sell ak lu mu kawe kawe faw nga nangul yonent bi sallallahu alayhi ñu doog a nangu sa jaamu yàlla gi bu dul loolu rek kenn du nangu sa jaamu yàlla te itam mënoo bëgg kenn te bëggoo ko ba sa bëgg am njariñ ndax li yàlla waxoon bu ngeen bëggee ma bëgg leen na ngeen topp yonent bi sallallahu alayhi kon kooku suñ boroom subhaanahu wa taala wan nañu ko ci ay melo yu bare bari kon askanamu tedd woowu yi lañ bëgg njëkk waxtaan ak mbokkitaal bi buñ ci jógee itam ci waxtaan yi suñ kanam daañu gën a ñëw nag ci tagg yu tedd yi ak maqaama mu tedd ak wàccuwaay bu kay bi nga xam ne Serigne jox na ko yonent bi sallallahu alayhi ci xeeti tagg yi mu ko doon tagg tagg yoo xam ne nee na man la yàlla jagleel ma nekk liggéeyam liggéeykatam bi gën a tedd muy asnal xadim moom la ko suñu borom subhanahu wa jagleel te loolu képp nag moo nekkoon yitteem te moom waxoon na ne day doon gi ma doon jaamu yàlla doon ki itam liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lu feeñ la loo xam ne ñëpp daañu tëg bët waaye itam képp ku léewtoo ak man sax yàlla dana toroxal zulul lazina barazuni xat saar wa kawniya xab wa kawniya abdal xadi mastaar nee na yàlla dana toroxal képp koo xam da ngay ak man te man day doon gi ma doon abdullahi wa xadim rasuli sallallahu alayhi wasallam loolu lu lu leer lay doon loo xam ne lu siiw la kenn du ci man dara yonent boobu yi am ay maam yu tëdd yu tàmbalee ci Abdul Muttalib Abdul Muttalib moom yi di doomi Isaam Isaam di doomi Abdul Manaaf Abdul Manaaf di doomi Xusay Xusay di doomi Kilaab Kilaab di doomi Murra Murra di doomi Kaabu Kaabu di doomi Luay Luay di doomi Xaalib xaalid doomi fi'ri fi'ri di doomi malik malik di doomi nadr nadr di doomi kina kinaana eh, kinaana doomi xuzayma di doomi mudrika ak ilias di doomi mudar mudar di doomi di doomi maad maad di doomi adnan yonent bi sallallahu alayhi nag moo daan wax ne way askane way askaneelkat yi maanaam ñi askanele samay maam képp koo ci xam ne ñëw na ba ba àdd naa nu bëgg koo jéggi rek kooku leen ko jàppe koo xam ne ab fenkat la maanaam way askanale way askanekat yi fen fen nañ bu fekkee ñi ngi askane samay maam ñëw ba àdd naa ñu bëgg koo romb donte am na ñuy askanale ay maamam ba ci Ismaayila alayhi salaam am sax ñuy askanale ay maamam ba ci Aadama alayhi salaam waaye dañuy wax ni moom euh, imaamu Malik radiyallahu anhu maanaam sib na askanale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci aadama kon lool yi wax la joo xam ne mi ngi bàyyi ko ci Ibnu Abbas radiyallahu anhu mu ne yonent bi nee na képp ku may askanale ba ñëw ba ci àddinaan nga bëgg koo weesu nee su boobaa kooka mën naa wax lu du dëgg yonent bi nag bokk ci néeg bu tedd boobu yi nga xam ne ba tey jëlee leen ci ibnu abbas radiallahu anhu mu ne anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna allaha xalaqa al xalq fa jaalani min xayrihim summa taqayara al xabail fa jaalani min xayri al xabila summa taqayara al buyut fa jaalani min xayri buyutahum qaala fa anna xayrahum wa xayrahum xaala fa anna xayrahum nafsan wa xayrahum baytan mu ne suñu borom subhaanahu wa taala mooy ki bind mbindeef waaye ci biir mbindeef yooyu mu def ci ñoo xam ne ñu gën lañ ñu gën ci ñoom lañ waaye dem ci seen biir mu def ci ay ay xabila mooy ay giir ñu naan giirub arab giirub wolof giirub giirub tukulóor soose ba nañ ko xamee waaye nag ci biir giir yooyu mu def ci ay giir yoo xam ne itam ñoo gën ci biir giir yooyu waaye ci biir giir yooyu mu jëlaat ci ab ay ay néeg ñu gën ci biir néeg yi nee nag mu tànn ci seen biir itam ci biir néeg koo xam ne moo gën ci ñoom nee man nag maay ki gën ci nit ñi waaye itam maay ki gën ci néeg yooyu yëpp moom yonent bi salaa salaam kon mooy ki nga xam ne kon yàlla moo ko tànn ci tànnin woo xam ne coobaree suñu borom subhaanahu wa mu gën ci loo xam ne moom la yàlla bind muhammadin afdali xalqillaahi bila taradudin wala stibaahi loola Sëriñ Tuubaa wax ne mbindee fi yàlla yëpp yonent moo ci gën te gën googi mu gën amut genn déng déng goo xam ne am na ko moom gën gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi gën ci mbindeef yàlla yi suñu boroom subhanahu wa taala ndax li mu wax ne man lam yalit wa laysa mawludan maa bi mawlidil muxtaari durri fa maa kon loolu day firndeel ne kenn dootul jur baa kenn dootul juddu di mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te itam laa rayba anna allaha lam yaxluq wala yaxluqu misluhu ma taqawla Sëñ Tuubaa nee na amut sikk amut senn sikk ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla bindut mësta bind ku mel ni moom tey tam dootul bind ku mel ni moom noonu loolu amul senn sikk suñ ci sikk sàkk waaye itam ñu jëlewaat ci alwaasila ibnu asq mu ne yonent bi nee na inna allaha min walad ibrahim ismail wastafa min wulida ismail bani kinaana wastafi min bani kinaana xoraychin wastafa min xoraychin bani aasim wastafani min bani aasim mu ne suñu borom subhaanahu wa moo ton moo tànn ci doomi ibrahima ismail Ismaayla di doomi Seydina Ibrahim nga xam ne Hajara moo ko jur nga xam ne bi mu gënee àddina Ibrahima jël ko mook ndeyam Hajara yóbbu leen fee ca Makkatal Mukarrama ci digganteem ak soxnaam soosu di Saarata ak ci xewoon yëpp di waajur Isaaq yóbbu leen ca Makkatal Mukarrama nga xam ne ba mu leen fay yóbbu wax nañu Makka amul ndox amul garab kenn dëkku fa amul sax ay rabe yàlla mu bàyyi leen fa ak seen boroom subhaanahu wa taala Ismaayla doon nit ku sell doon nit ku tedd nga xam ne mooy ki àndoon ak waajuram Ibrahima di taxawal néeg bu tedd bee ñuy dem at mu jot di Kaaba ga di néegu yàlla bu tedd bi nga xam ne mooy néeg bi gën a tedd ci kaw suuf mook baayam Ibrahima ñoo ko ànd taxawal Ismaayila moom yi suñ boroom tànn ko ci doomi euh, kii Ibrahima alayhi salaam waaye itam nee na mu tànn ci doomi Ismaayila ak giir gu ñu wax bani kinaana tànnaat ci biir bani kinaana góor gu ñu giir gu ñuy wax xoraysin tànn ci xoraysin giir gu ñu wax bani Hashim nee nag mu daa demay tànn man yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir bani Hashim kon xeetu tànnin la yoo xam ne yàlla koy segg di ko tànn ay tànnin yu sell moom yont bi sallallahu alayhi nga xam ne tànnin wu ci nekk rek day wane moom gën gi nga xam ne moom la gën kudut moom moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nag maam yu tedd yi bi nga xam ne waajuramu tedd wa abdullahi nga xam ne abdullahi abdul moo ko jur abdul muttalib dañuy wax ne suñ boroom subhaanahu wa taala baaxe woon na ko fukki doom yu góor ak juróomi doom yu jigéen te mooy abdullahi abu taalib abu taalib mooy bàyyi seydina aliyun ak Jaxfar ñu nga xam ne Abdul Manaaf mooy aw turam dëgg-dëgg moom doom yi Abdul Muttalib la moom sax la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi fi maamam di jóge Abdul Muttalib mii kim ku batale woon mooy Abu Talib nga xam ne moom ku néewoon doole la ci am-am waaye nag ku amoon yërmaande la mooy bàyyi Seydina Aliyun nga xam ne keroog bi nga xam ne maam Abdou Muttalib jóge na fi moom moo ko yor yor ko yiir ko jàppale ko lool ci fexe ba yéefar yi nga xam ne dañ koo weddi woon amul jenn lor joo xam ne Abu Taalib mas na koo seetaan ñu def ko ci yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne ak faatoom ak faatu Xadiija ñetti fan lañ rawante nga xam ne mooy ñaar ñi nga xam ne ci ci zaahir donte moom yàlla moo koy aar ndax wallahu yaasimuka min annaas loolu ko yàlla waxoon yàlla koy maa lay aar ci nit ñi waaye ña ko doon jàppale ci liggéeyam bu tedd boobu nag abu taalib mi ràññeekoon na ci ak seenu génn àddina mi ngi rawante ci ñetti fan moom mi am na sax ñi wax ne mas nañ koo laaj ne ko abu taalib ni mu sonne ci yow ak lim daj ci yow ana loo ko defal ana loo ko defal ndax am na ñu naan Abu Taalib eh, bi muy sukkuraat yonent bi wax wax loo ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ne ko soo ko waxee mu doon sawlay sa diggante ak sawara li ëpp ci ñenn ñi li ñu wax mooy jëtu koo wax am na sax ñu ne wax na ko waaye loola lu néew la waaye daal biñ ko laajee ne ko Abu Taalib loo ko defal daf ne jële naa ko ci lëgg jële naa ko ci lëgg-lëggi sawara indi ko ci kaw ak mbugalam weesuwul rek yuur guy baax loolu nag lu metti la waaye li muy wane rek mooy yontu sa sam daal mooy ki nga xam ne boo ko boo amul aqida ci moom bu sell rek sa mbir moom daanaka euh, du mën a jag mukk sa diggéen ak sa borom subhanahu wa taala waaye Abu Talib mii doomi Abdul Muttalib ak ku ñuy wax Zubayru Zubayr itam Abdul Muttalib moo ko jur euh, Zubayr bi mooy mooy bàyyi Abdullahi ibnu Zubayru waaye itam Zubayru ak Seydina Abbas itam doomi Abdul Muttalib la euh, Abbas moom mooy aljaddul xulafa al abbasiyin mooy bàyyi Abdullahi ibnu Abbas mooy itam doomi euh, Abdul Muttalib la ak ku ñuy wax diraar ak itam ku ñuy wax Hamza di jàmbaar jooji nga xam ne moom lañu reyoon reyin wu ñaaw woow dagg dënn ba génne res di ko lekk ci soxna soosi yi nga xam ne jëfam ju ñaaw jooji ñi mu digaloon wax ci te yonti waxoon ne ki def lii Hamza day du tàbbi sawara ndax daneeti am sa mu nekk ci yow doo tàbbi sa waral waaye soxna soosu mu mujj na nekk ab jullit moo taxoon wax lool am sa mii doonoon jàmbaar lool doonoon koo xam ne ak faatoom lu metti woon bi sallallahu alayhi wasallam la kon am sa mii itam doomi Abdul Muttalib la waaye itam Abu Lahab Abu Lahab mi nga xam ne itam ku siiw la ci ci taarixu yontu bi sallallahu am na sax ñu wax ne keroog bi yontu bi ganee àddina jaamam bi ñëwoon ne ko Aminatu bintu am na am na doom am na ñu ne dafa bëgg ci moom ba goreel jaam boobu ba sa ba tax sa am ñu wax ne altine ji jot daañu ko génne ci mbugal ma mu nekk féexal ko ngir bëgg gim bëggoon ci gan ak àddina yonent bi sallallahu am na ñu wax loolu wallahu taala alam waaye tam moo mujj doon ki gën a ñaayu wax gën a tar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax keroog ba ko yàlla yónnee mu taxaw woo leen deen wax li ko yàlla wax ndax yàlla moo ko njëkk wax ne ko wa ansir aziratakal aqrabin na nga waar nag nanga nga waar ñi ñi la gën a jege nag moo ay baayam woo ay bàjjanam woo ay bokkam deen waar kere ba mu waxee ba pare neen yàlla ma yónni lam ku njëkk wax mooy tabban lakka ali aza jamaatina yow tuskare ñeel na la lii moo ñu lii moo tax nga ñu fi dajale nga xam mooy ki nga xam ne jullit yëpp mënoon noo waat ci ne du tabbi aljanna ndax alquran moo ko moo ko confirmé ci tabat yada abi lahab wa tab ma aane an mal wa ma kasab sa yasla naaran zata lahab wa amraatuhu xawaanatul xatab fii jiidiha xablun min masad waaye nag moom doomi abdul muttalib la waaye itam ku ñuy wax abdul izz euh, doomi abdul muttalib la ak ku ñuy wax aris aris mi itam keroog bi abu Abdou Muttalib di nëzër di wax ne su ma yàlla mayee fukki doom danaa danaa ko sant ba rey kenn ka booba aaris booba aaris képp la am ci doom ndax bi muy gas zam-zam ñu xeeb ko ci lool ngir ñàkk ak njaboot ci la waxoon ne su ma yàlla mayee fukki doom dana sant yàlla ba rey kenn ka booba benn doom la am muy aaris waaye itam amoon na juróomi juróom benn doom yoo xam ne yu yu jigéen lañ juróom benn doomi jigéen yooyu ñu man caa tudd ndax fukki doomi góor sax bokk na ci euh, xaydaax itam doom la euh, aw turam dëgg di ajal juróom benn jigéen yi mooy safa safiya ak umul ak atika ak umayma ak arwa ak barara ñii ñooy doomi abdul muttalib yi nga xam ne ñoom na ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala joxoon abdul muttalib mii nag di waajuru abdullahi mi jur yonent bi sallallahu alayhi sallam nga xam ne bi muy faatu mi ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom moom abdullahi mi bi sallallahu alayhi nga xam ne booba ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam waajuram mbéemur na ko mbéemuur mooy mi ngi ci biir waajuram wu jigéen ci la faatu moom ah, abdu abdullahi te fekk moom bi bàyyam nësalee ne su amee fukki doom dana rey kenn ki kere bi ko yàlla mayee fukki doom ñu fàttali ko nësaram boobu yi mu nësaroon ci rey kenn ci doom yi li ñuy wax wantale mooy tegoo bant heure bu ñu sànnee bant bi rek bant bi mi ngi dal ci abdullah heure bu ñu sànnee mu dal ci moom nga xam ne bëgg koo bëgg koo rey nga xam ne lam lam mujj def mooy jote ko ay giléem giléem yoo xam ne dañuy dàq rek bàyyi leen euh, ku neex ku mu neex jël ku neex rey lekk lu neex waaye mu def ngir rek jote ko doom jooju ci lim nasaroon ne bu amee fukki doom dana rey kenn ke ngir sànde ko boroomam subhaanahu wa taala abdul muttalib mii nag ku fonkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wax nañu sax moom abdul muttalib su masaa toog ay doomam ay doomam daawun toogandoo ak moom ci kaw nii ñu xamee ñuy toogandoo ak sunu kilifa yi nii ñuy tooge ak ñoom wax nañu abdul muttalib ay doomam noonu lañ daan tooge ak moom daawul toogandoo ak moom ci kaw masaa toog dañ koy lalal mu toog ci kaw ñoom ñu toog ci suuf waaye wax nañu yonent bi sallallahu alayhi wa da daan ñëw di toog ci kaw laltu gi baa muy toog ci kawam ba ay doom sax di ko xëcci ngir mu toog ci suuf waaye la mu leen di wax mooy bàyyi leen ko kii sama doom la moom Abdul Muttalib kon ku moo njëkk a teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te itam ba mu gënee àddina moo ko tudde muhammad sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ko ca kaaba ga ñaanal ko fa yàlla nga xam ne wax nañ ne keroog ba mu ko yóbbee ca kaaba ga di ko ñaanal yàlla ak itam tur bi mu ko tuddee muy muhammad wax nañ ay bokkam laaj ne ko ne ko turu muhammad wan tur la ndax ñoom miinu ñu tur muhammad miinuñu ko woon ci seen biir bokk donte am nañu ko tuddoon waaye bariwut waaye nag ñun miinuñu woon daal ci seeni tur ñu ne muhammad mooy wan tur mooy leen Muhammad dey dama bëgg mu doon koo xam ne waa àddina bépp dañ koy sant kon day mel tur woowu aw tur la woo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo ko yenki wal ci aw ci làmmiñam ak xolam mu tudde ko dama bëgg mu doon koo xam ne àddina bépp dañ koy sant yaakaar naa bis bi yàlla sàkk lii tudd tudd sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay junni junni junni junni la ba tax aw turam sax di julli ci moom sax bokk ci li nga xam ne day waral ak mucc ci sawara ndax suñu borom subhaanahu wa taala moo wax ne ku julli ci moom benn yoon ma julli ci yow fukki yoon ku julli ci moom ma julli ci téeméer ku julli ci moom téeméer ma julli ci yow ku julli ci moom junni sa yaram araamal na sawara moom yonent bi sallallahu kon lam waxoon ne dama bëgg mu doon ku ñuy sant kon loolu suñu borom subhaanahu wa taala dogal na ko yonti boobu itam di doomi abdullah mi ñu tuddoon léegi ak amina bintu wahb wax ñekk amina keroog bi ñu ko joxee abdul abdullah keroog la doon mboolem sangub jigéenu xoraysin ngir lan ngir yàlla leer bu tedd gi mu war a wàcce ci kaw suuf ki nga xam ne bu juddoo ci la yàlla li fare ak kéefër ki nga xam ne bu juddoo mooy leeral àddina bi ki nga xam ne bu juddoo mooy far bakkaar yi ki nga xam ne bu juddoo yàlla dàq seytaane yi ki nga xam ne ci ab juddoom ci la ñuy taxee ci la ñuy feexee kooku yi bis bi nga xam ne ci la waajuramu jigéen ci lañ ko jox mu góor keroog la doom keroog la nekk sangub jigéen ñi moom Aminat bint Wahb waaye nag bi mu àndee ak Abdullahi ibn Abdul Muttalib day mel ni seen diggante yàggut am na ñu ne ci diir bu gàtt rekk ci la am ci biiru waajuram mu daldi di génn àddina moom Abdul Muttalib ci juróom-ñeenti weer ci ci ñaari weer ci la ko ci la faatu moom Abdul Muttalib ci diir bi nga xam ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ko ci biir waajuram wu jigéen di Amina bi mu ganee àddina kon fekk fi waajuram waajuramu jigéen woowu yi yor ko di Aminatu bintu Wahab nekk ak moom itam moom ba am diir bu gàtt buy tolloog rek juróom ñetti weer ba juróom ñeenti weer moom itam mu daldi génn àddina bàyyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak maam ju tedd jooji di Abdul Muttalib mi ñu waxoon léegi mu yor ko ci façon yorin bu rafet yorin bu tedd moom yonent bi nag mi ngi judd ci li ñuy wax amul fiil amul fiil moom lañuy wax atum ñay yi alxuraan moom lay tudd ci alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaarin min sijilin fa ja'alahum ka'asin ma'kul kon amul fiil di at moom yi nga xam ne ci la abraha ñëwoon ngir màbbu kaaba ga ngir moom dafa jàppoon ne néeg boobu ñuy wër at mu jot ab néeg la boo xam ne daal war na ko mën a am ba jëloon xaalis bu bari tabax ci néeg boo xam ne daf ko def ngir concurrence ak kaaba googu nga xam ne néegu suñu borom subhaanahu wa taala bi mu defee loolu wax nañ ne kenn ku bokk ci waa Makka dégg ne Abraha dafa tabax néeg boo xam ne jubluwaay bi mooy ñu di ko wër di ko ziyaare comme nañuy ziyaare jee Kaaba gee ca Makka mu déggoo mu naqari ko lool wax nañ ne mu bàyyi ba guddi moom arab boobu mu daal dem ca néeg boobu daal fay dem àll daal di koy saboote Abraha bi mu gisee loolu wax nañ ni mu daal ne kii daal li may def sax mooy néeg boobu ñuy wër lay dem daal koy màbbi bi mu ñëwee ne da koy màbbu ànd ak war ay ñay bi mu ñëwee ba ci ba màkkatal mu karama laajte kan mooy kilifa kilifa dëkk bi waa kan mooy kilifa néeg bi ñu indi ko ci Abdul Muttalib fekk Abdul Muttalib ay gileemam dafa réeroon mu di ko wër ba mu ñëwee ba ci Abraha ba mu ko gisee daal di koy màggal lool jox ko cër ngir ma talib ak Hayba mu ngi woon ci moom maanaam ko ko gisee da ko bàyyi xel ngir leer Yonent bi sallallahu alayhi gi nekkoon ci moom war a jaare ci moom ne mu ñëwee ne ko samay gilleem laay wër mu ne ko yow day bett nga ma lool ndax bi ma la gisee ni ma la nawee woon ak ni ma la fonke woon yaakaaroon naa daal sa personnalité ëpp na ñëw di laaj ay gileem yu réer mu ne ko gileem yi day maa ko moom kon sañ naa koo toppatoo bu dee nag jëmmi néeg bi nga xam ne moo la tax a jóg néeg bi moom am na boroom am na boroom te mooy yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne waaw ah, kon baax na kon daal di jiblu nag ci fas yéenee màbbu néeg boobu yi di néegu suñu boroom subhaanahu wa la ci la yàlla nag wàcce ay ay picc jox leen ay xeer ngir ñu sànni leen ko wa amtarna alayhim xijaratin min sijilin mooy tarmihim bi xijaratin min sijilin waaye boo demee ci surat xijri ak suratul xuut wa amtarna alayhim xijaratin min sijilin ak wa amtarna alayha xijaratin min sijilin mandub kon loolu lépp day wane rek xeer yi nga xam ne suñu mboroom moo ko joxoon ay picc ngir ñi ñëw sànni ko ñooñu àndoon ak kon ci amul fiili boobu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane àddina ci guddi ci fajaruk altine fajaru altine ci la yonent bi feeñ ci fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmo ci fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmo di feeñ gu tedd goo xam ne Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu nee na guddi gi mu feeñee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy guddi gi nga xam ne ci la yàlla fare ay sikk ci la yàlla fare ay ay coono ak i ayib waaye mooy guddi gi nga xam ne guddi gi nga xam ne ci la gane àddina mooy guddi gi nga xam ne ci lañu laabe ci ay bàkkaar laylatu mawlidin nabi laylatu maawi riya bi laylatu maawi taa bi wa turisi te azumi waaye tam ci guddi googu yi mu feeñe mooy guddi gi nga xam ne ci la suñ borom subhaanahu wa taala ci lay texeele jaam yi ci la leen di muccale biha najaatu wal falaax maa sururin wa najaa biha rabaa wa salaa maa ndifaaxi ni xame waaye tam mbugal ak tartar ak mitit ci guddi googu yi la ko suñu borom subhaanahu wa di ko dàqe moom la ko woykat bi wax naan daa at li mawlidihi afaaxawat wa busra awaatifa fil israaxi wa tifli wa sarxu kasra tudaa min xawaayidihi wan xadda mun arjaada zamilali wa naara farshin lam tuuxat wa ma xamidat munsu alifun aami wa nahrul xawmi lam yasuli xarat li mu baasi aw wan baasat sawaaximu saabi tarmi jinni bi saabi loolu moom la suñ di wayaat rek naan wakan xidaali suhubi tardan li ahli rajabi wala sax la ko jiitu ci xawat xawaarixa badat anisu anirwaati asbatat ka misli naarin atfi at maa mi xaami maa mi ay daxami wa ayni saawata allati xad asumat wa jallati lil fursi xabla al millati wa suyirat kal adami wa kan xidaali suhubi tadran li ahli riyabi an sami axbaari nabi wa rajaaw bi nadabi turida fiha bi nujum loo xam ne am la ci xeeti ay taal yu doon taal waa furs ay at di ko jaamu muy munsu aliful am diirub ay junni at seen takk takk yooyu ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam àddina ci la ci la fare waaye tam ci guddi googi guddi la goo xam ne jinne yi nga xam ne dañu daan yéeg ci asamaan si di déglu ay xibaar di déglu xibaar yi ak waxtaani malayka yi di ñëwaat ci àddina di ko jox ñi ñuy wax ay ay njibarkat di ko nettali ñiy wax li xew suba ak gannaaw suba ci guddi googu yi bi mu yónni sasam ganee àddina ñoom jinne yooyu dañ leen a dàq ci ko asamaan mootu ñoo dégg dara la fiha bi nujum ani samawati rajim wa farraxan siran yulim bi isbi saawakami ngir ganek àddina ku tedd kook yi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne stataina wulida xayru nabin xad bada sala aley man ala faadu bil ekami nuurun azimun xad yara bii xusuura xaysara man kaana fi l ummil xura makkata xayral orami iwaanu kisran sadaa fiha wa xabl rufia samkullu fa tafa naxwa sama mukarami nga xam ne guddi googi mu gënee àddina moom yonent bi sallallahu alayhi wa guddi la goo xam ne euh, keroog ak leer gu màgg la suñu borom subhanahu wa jollil nga xam ne ki nekk Makka sax mën naa nekk fi fii ci ca Makkatal Mukarrama di gis Saam walla Siri wala Yaman moom nga xam ne ci masalan ci misaal mën ngaa nekk fii ci Touba di xool di gis ku nekk ndakaar wala Ndar wala kasamaas wala tàmba ngir leer goo xam ne jolli na ba espace amatu waaye tam ci guddi googu yi mu ganee àddina moom it ci la suñu borom nag palais Kisra boobu bi nga xam ne pale bu rafet bu rëy la tamit di fàq di dagg di daan di toj ngir lan ngir ki nga xam ne moo war a dàq lépp loo xam ne caaxaan la ak loo xam lu dëgg la feeñ na ci jamono moom itamit moom yonent bi sallallahu alayhi kon kooku day mel ni ak feeñam jamono mooy li nga xam ne mooy li ñu wax léegi ci tàmbali gi mooy yërmaane yi bépp jaam wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin te itam mboolem yonte yoo xam ne itam yàlla mas leen a bind tàmbalee ci aadama ba jaar ci ñi ñëw ginnaawam ñëpp daanan junju ne ñoom kat ay ndawi yàlla lañ yoo xam ne yoon wi leen yàlla leeraloo dañ koy xàllal ki nga xam ne mooy muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne yontu yàlla Isaa sax kere ba muy ba muy nekk ci war fee jóge junjoon junjoon na ne bu fi jógee am na keneen kuy ñëw ginnaawam ku ñuy wax Muhammad ismuhu Ahmad ismuhu Ahmad am naa kon ñoom turu Ahmad woowu yi ñu wax ba ñëw ba mu ñu tudd Muhammad jàpp ne kon Ahmad la wax kon kon du kii waaye Muhammad moom mooy tur wi nga xam ne mooy ki waa àddina di sant ahmadu mooy cantu waa kaw muhammad mooy cantu suuf yooyu yëpp benn la bu ci nekk rek suñu boroom subhaanahu wa taala wooye na ko ci alquran kon yonent yooyu nga xam ne ñëpp yàlla yónni woon leen waxuma la moom lañ doon xalal aw yoon waaye ñoom ñëpp sax seen seen daraja ak liñ doon bëgg ci yàlla lépp ñu ngi ko amee ci ñëw góor nga xam ne moom yonent sa feeñ na ko jamono kon ci ak feeñam jamono moom yonent sallallahu ak darajaam ak maqaamaam ci la ndawi yàlla yépp amee woon liñ bëgg ci seen boroom subhanahu wa taala ndax bu ñu tàmbalee ci aadama mi nga xam ne mooy abul bashar nga xam ne ku yàlla bind rek dañuy wax ne aadama mooy sa mooy sa baay Awa mooy sa waajur jigéen aadam wax nañ ne njëggal gi ko yàlla jéggaloon keroog ba mu ko génnee aljanna njëggal googi mi ngi ko ko defale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke mun suñ tuwaa di wax naan bi jaahi faaza bil xufraani aadamu min baadan ibaatin min alxaarin wa jannaati keroog suñ borom subhaanahu wa si sippee ci aljanna ak dexi aljanna yooyu ba wàcce ko ci àddina moo soxnaam sa xawa lañ defoon ba tax yàlla génn leen aljanna yàllaa leen ko jéggale ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam nuuxin alayhi salaam moom nga xam ne gaalam googi mu bindoon mu mu mu liggéeyoon te amoon ci ndigalal yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala gaal googee mi ngi teere ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam najaa bi illaahu nuuhan fi safinatihi wajaahu kafa yanquba albaliyaati yanquba itam nattu ba ko yàlla tegoon at yu yàgg yàlla nga ko teggale teggile ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla yuusa itam ba ko ay doomi baayam jële iñaane ko ba jël ko sànni ko ci ak bënn ba suñu boroom muccal ko ca ba def ko nam ko def ci xeeti teraanga yi mu ko mujj jox lépp mi ngi ame loolu ca génn googu ca bënn ga ci barke yonent bi sallallahu alayhi bil mustafa axrajal manaanu yusufa min zijnin matinin wa tilkal xayaabati kon yonent bi mooy ki xam ne mooy ki xettali képp ku yàlla bind tàmbalee ci ñi yàlla yónni Ibrahima ak itam euh, yónni yàlla Yunus ba ko jën ma itam muy wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin yàlla nga ko jéggalee génnee ko ci tartar yooyu ci barke yonte bi sallallahu Ibrahima itam bañ ko dugalee ca sawarawa bi xadat naar Ibrahima baaridatan maa salaamin wa aza xarqu ma ngi ko amee ci daraja yonent bi sallallahu alayhi kon kooku mooy ki nga xam ne ak gane àddinaam mooy ki nga xam ne mooy xettali képp koo xam ne suñ boroom subhaanahu wa bind na la kon bi mu gënee àddina nag ba am lu tollook juróom-ñetti weer jàpp juróom-ñeent ci la waajuram génne nag màkkatal mukarrama dem di seeti nag ay bokkam ñu wax ay nijaayam ba mu waxee ne ba mu ba ci yoon wa ca la ca génnee àddina moom Aminata bintu wax bi bi mu génnee àddina ñu fekkoon Aymatu Saadiya mooy ki nga xam ne moo ko doon nàmpal ndax arab yi dañoo baaxoo woon seeni doom dañ leen di jox waa kaw ga ñu leen di nàmpal ngir bëgg ci ñoom ñu am xel ak bëgg ci ñoom ñu am kattan ak bëgg ci ñoom ñu nekk ay jàmbar li ñuy wax saxul sadr sax maanaam xar gi ñu xaroon dënnam génn ci lépp loo xam ne ayib la loolu mi ngi xew woon ci foofu ci kër alimatu saadiya kon mu nekkee noonu nag nekk ak maamam ju tedd ja mu yor ko ba mu génn àddina bàyyee ko baayam bu tedd boobu di euh, Abu Talib mu nekk ak moom nag ba suñ boroom subhaanahu wa taala yónni ko waaye ci diir bi muy dund te nekku te nekkut ab yonent yàlla def na ci moom ay qualité yoo xam ne bu fekkoon doomu aadama ku neex a waxal la baa doomu aadama ku amul dégg la keroog ba nga xam ne neewoo nee na yàlla ma yónni bu ñu fàttaliku woon ci ginnaaw rek daañu xam ne kii li mu wax dëgg la ndax turam wu tedd wooyu di al amin muhammadul amin mooy ku nu wóolu ki biñ ko koy tuddee booba nekkut ab yonent booba kenn yónniwu ko te ñoom ñoo ko tuddee ngir doon gim doonoon ku wóor koo xam ne loo ko wax doo ko dégg feneen loolu itam di lu mot a bàyyi xel di lu di lu jeex ci jamono ndax ko wóolu ba wax ko sa secret amaana mu génn tasaare ko yont bi nag moom doon na noo koo xam ne loo ko wax doo ko dégg feneen xanaa yaa ko waxaat waaye tam doon na koo xam ne loo ko dénk nanga ko ko boo ñëwee noonu la la koy delloowee loo ko dénk boo ñëwee nanga ko ko dénki woon moo xam ci loo ko defoon baa defoo ci dara noonu la la koy delloowee waaye itam doon koo xam ne du wax mukk ab rendez-vous faussé ko waaye itam du wax mukk loo xam ne lu wóote ak dëgg la kon jikko yu tedd yooyu mu amoon ba suñu borom subhaanahu wa taala tagg ko ci wa innaka la ala xuluqin azim jikko yooyu ña nga xam ne ba mu wootee gëmuñu ko ñenn ñi gëmuñu ko ñoo ko njëkk a ne ko yow day ku ku wóor nga al amin al amin kon tur yi tudd na ko lu jiitu lislaam di ñëw kon bi mu nekkee ci diggante boobu jaar na fi ci ay mbir yu bari jaar na fi ci ak càmm jaar na fi ci commerce ci alali Xadija mi nga xam ne moom la ko yàlla njëkk a booleel ci kaw suuf mu nekk soxnaam nga xam ne keroog bi mu bi mu ko gisee boole kook Maysara di ko jox alalam di ànd ak moom di commerce waaye ci barke bi yonent bi bi mu amoon tax na commerce barkee lool lu mu jaay mu jar ba xam Maysara bi nga xam moo lañ ko boole loon sax gis na ay kiimtaan yu rëy ci ànd gi muy ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba dem ba Xadija naw yonent bi sallallahu naw jikkoom naw aw doxinam waaye tam suñ boroom yenkiiwal ko mu yëg baax ak leer gi nga xam ne mi ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba moom moo sàkku ci yonent bi doon boroom këram moom Khadija te booba Khadija mën nañoo wax ne mooy ki ëpp alal ci jigéen yi Makkatal Mukarrama waaye itam mën nañoo wax ne kenn gënu ci woon a taaru waaye itam mën nañoo ne mooy ki nga xam ne boroom alal yi yëpp baa boroom daraja yëpp di ay góor jublu woon nañ ko ngir mu nekk seen soxna waaye suñu borom subhaanahu wa taala dogal ci moom bëggul ku lu bi sallallahu alayhi wa sallam donte jaar na feneen nga xam ne moom moo sàkku ñu may ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bi yont bi ñëwee wax ko baayam Abu Taalib ne ko Xadija day dafa sàkku ci man ngir ma nekk boroom këram Abu Taalib loolu rëy na ci moom lool ndax moom ab faqiir la mooy abu taalib di baayam amul doole muhammad xadija moo ko yow di ko liggéeyloo di ko fay xadija ni mel ci am alal ak taar su ne dafa bëgg yonte salaam nekk boroom këram loolu dana ko xaw a jaaxal lool waaye loolu dëgg la woon ci moom ñu jaar fi ñu jaar fépp ba xadija nekk soxnas yonent bi sallallahu alayhi wasallam te booba xadija mi ngi am ci li ñu wax ñeent fukki at yonent mi ngi am ñaar fukki at ak juróom muy wax ji gën a bari kon day mel ni sëy moom ku góor gën a doon ndaw ku jigéen mag loolu du dara ci sëy ndax Xadija amoon na quarante ans bi am vingt cinq te teewut yonent bi salaam juróom-ñaari bant juróom-ñaari leer yi ko yàlla jox ci kaw suuf yépp Xadija moo jur juróom benn yépp ba mu des kenn képp lu ci jurut muy ibrahima mariama ab alqibtiya mooy waajuram waaye xaasim mi taawam ak abdullah ak itam zeynabu fatima roqiya umu kalsoom ñi ñëpp xadija mooy seen waajur te bu ñu xoolee at yi mu amoon dañuy wax ne jigéen at yi muy toll ci ñàkk am doom ñeent fukki at jëm ñeent fukk ak juróom waaye li gën a yéeme mooy Xadija yonent bi doom doom yëpp moo leen jur ba mu des kenn tàmbalee ci xaasim ba ci euh, abdullah nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi judd sax lu jiit nu yi ndax dañu wax ne euh, abdullahi rek mooy ki nga xam ne moo judd ci ci nubuwa yi ak Ibrahima waaye bu ñoom rek ñu des ñëpp ñu ngi judd xabla nubuwati muy xaasim muy euh, Fatima muy Zeynabu muy Roqaya muy Umul Kalsum ñoom ñëpp itam ñu ngi juddoo Makkatal Mukarrama ba mu des Ibrahima moom mi ngi juddoo Madinatu Munawwara faatu ci ak ndaw ci perantal nga xam ne diirub ñaar fukki at ak ñeent yonent bi yorul kenn ku dul Xadija ba bu mu faatoo rek la doog a jëlaat ay soxna jël soxna Sawda tegaat ca Sayyidatuna Aïcha ba ni mu yoree juróom-ñeenti soxna ba jëm sax fukk ak benn waaye li gën a wóor mooy juróom-ñeent moom ñoo ko ñoo ko muur Xadija nekk ak moom yonent bi sallallahu ci nekkin wi gën a rafet nekk ak moom ci nekkin wi gën a tedd bi yonent bi daan dem xaaru Xiraa di fa wéetal boroomam ak di fa dem di teewlu di xalaat ba bis xadi euh, yonent bi sallallahu nekk fa ci xaaru xira jibril fekk ko fa daal koy jat daal koy mboq ci dañ ko mën a waxe naan ko iqra mu naan ko maa annaa bi xaari in man day dumab jàngkat man dumab jàngkat wax nañ mu def ko ay yoon ba mu jógee ca xuntima ñëw ci kër gi fekk fi xadija bi mu ñëwee di wax zammilu nii dassiru nii mu yaayal mu sammil ak yaayal mu dassir sàng leen ma muur leen ma bi loolu amee xadija dalal ko xamal ko ne ko yow day doo jommi doo am lenn loo xam ne mbugal la baa lu metti la lu dal sa kaw la nit ku tedd nga nit ku baax nga yow sàmmkatu kóllëre nga nit ku nit ku jub nga kon bu ragal lenn loo xam ne lu lay gàllankoor la jël ko daal ko yóbbu ci warxatu ibnu nawfal mu mel ni kon sa boroom kër walla sa doom walla sa mbokk yàgg naa nekk ci ay jafe-jafe nga jël ko yóbbu ko ci koo xam ne am nga ci moom yaakaar mu wax la ci dara baa mu ñaanal la ci mu ne ko kii de damaa ragal ne li daa dikkal yontu yàlla Muusa moo ko dikkal kooku mooy Jibril waaye day maa ngi lay xamal ne na bàyyi xel ay nattu yu tar yoo xam ne dana ñëw ci kawam ak neexoon bu lay génne ma fekk la ba mën laa aar ak neexoon bu la yàlla yónnee mu fekk ba ma mën laa gëm kon moom yàggees na ko gëm kon bi loolu amee kon mu ñëwaat ci kër gi nekk ak moom ba ni mu amee ñeent fukki at nag ci la ko yàlla yónni moom yónent bi sallallahu alayhi wa xamal ko ne ko nag wa ansir asirataka al aqrabin maanaam yónni gi ma la yónni nag fexeel nag nga daal di koy leeralal nag ñii la yàlla booleel kon kooku mooy yónent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay maamoom ak itam gane àddinaam ak aw nekkinam woo xam ne dañ ci jaar rek di jàll ak di ci junju waaye ak dundam dafa fees dell ak tedd nga ak karaama jubluwaayu jàngataat ak fàttalikuwaat ñëw àddina yonent bi sallallahu alayhi jubluwaay rek mooy ñu fàttaliku taarix te xam ne taarix bi gën a riis mooy taarixu yonent bi sallallahu ndax moom kat mooy ki gën a tedd ci li yàlla bind te loola lu wér la loo xam ne suñ borom subhaanahu wa taala firndeel na ko ci moom moom itam doxe na ko waaye ñu baax ñépp wax nañ ko ko nga xam ne lépp lu baax ak lu mën a doon loola rek mu ngi tukkee ci baaxu ko yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne sëñ Tuubaa nee na weer wii mu gane àddina di weeru euh, rabiul awal nee na mooy ngën ji weer ndax mooy weer yi nga xam ne moo ñu dikke ki gën ci ñu yàlla yónni yaa xayra sa'rin jaabi xayri morsali asabta xatxan madadi wa kasali nee ci ci ci ci weer woo nga xam ne moo ñu dikke ki gën ci ci ki gën ci ñu yàlla yónni dañal nga demal nga ci man sax euh, tawat ak tayal kon faw kon ñu jàngataat dundam waxtaanewaat ko incha allah ci kàttun yàlla kon bu ñu fi yàlla indiwaatee ci maktabatu Seexul Xadim ñu àndaat ak yéen ci yónni yónni yónntu nag bi nga xam ne moom la ko yàlla yónni woon ci ni mu ko tàmbalee ak itam ni mu ko dundee ak itam ñi mu ko àndaloon kon tey dañ doon présenté rek jotaay bi ci Euh, waxtaane ak gane àddinaam ak yi ci xew yépp donte ëpp na lii waaye nag jamono mooy xat ba lépp mënee su ko wax waaye li bu ñu waxee lii ëpp solo rek ñu mën koo dégg mën koo téye man koo bàyyi xel bu nu fi teewaatee mën a ànd ak yéen ci keroon bi suñu borom subhaanahu wa taala yónnee mu taxaw nag fas yéene waar jaami yàlla yi fas yéene li wax nag li ko yàlla yónni ak na mu ko doxalee ak la ko ca fekk lépp sallallahu alayhi wa sallam waaye itam daañu ñëw ci Sëriñ Tuba radiyallahu anhu bi nga xam ne moo nekkoon ak ab liggéeykatam nekkoon jàmbaaram li nga xam ne kenn waxu ko lu mel ni lim ko wax te kenn dootu ko wax lu mel ni lim ko wax bu ñëwaatee incha allah itam mën a leeral nag Sëriñ Tuba tagg yu tedd yi nga xam ne moom la jëmale woon ci sàngam bu tëdd ba sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne newoon na man kat sama dund dama ko xaaj ñaari xaaj salaatu sitta bi maxti sitta taati hi batta maxti say su juróom benn weer damay julli ci moom juróom benn weer dama koy tagg kon kooku jël na ak dundam gépp jox ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam desalu ko ci dara lépp moom la ko joxoon te itam nee na àddina bu fekkee am na lu ñu fi xool mu neex baa am na lu ñu fi gis mu rafet neen loolu mooy yontu sala sala neen taarub taarub àddina ak lu bànneexu àddina suñ ci waa nee na bi sala sala ne lu lu rek loola rafet du neex kon li neex ci àddina rafet ci àddina mooy yontu bi sala salaam ñu ngi leen jégalu bu baax ci kàddu yi lu ci dëng ne ni ko jégal lu jub ñu sant ko suñu borom subhanahu wa taala ñaan si mun taxaam yaa ngi fi loolu ti wér wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu makkati mbaro yàlla may na ko sindanooro